ñun Sénégal dañoo am LONAS. LONAS maam Matar Gueye chaque année waa LONAS jox leen jox leen ay jox leen ay biir màq. déet waay. barke rasulilah LONAS mooy sponsorisé ñoom ñoom ñoom maam Matar Gueye di leen jox biir màq plus de vingt biir màq chaque année. yaay innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaan yàlla nee na ci yëpp shaytaan la. mais yow xam nga da ngay weeraate yow Mame Matar bi foog ñu commencé génn say dossier te la ma lay laaj rek mooy LONASE ak xaalis la suñu valeur bëgg ko suñu diine bëgg ko LONASE moo ne fi yëpp ko moom képp ku Sénégalais rek am nga wàll si LONASE te day joxe ay BMA comme yéen jamono lañu jox ay BMA.